mbokk internet Leewtoo TV di leen jaajëfalaat bu baax di contentement ak mbégte janoog yéen chaque suba di indi leen li nga xamante ne mooy seen revue de la l'arène li gën a fës ci bopp xibaaru làmb laataa loolu nag damay nuyu sama gars yi rek gëj nga ñoo gis na namoon nañ leen. dañoo demoon Gambie dañoo demoon Gambie. jële woon fa ay làmba ya nga xamante ne bi nag macha allah bëgg internet yi kontaan kese moo taxoon ñu dem Gambie yaakaar naa leen fa jële gis ngeen ko am na yu des incha allah daañu leen ko jox ci anam bu mucc ayib fay naa la Ndeye Mbacke ñëpp jërëjëf Ousmane sama monteur bi nga xamante ne bi nee naa leen lu mu monté wul baaxul moo ma daaj kaasu meew sànq man naa merci beaucoup Ouz Assane Waalo nuyu naa la Mbay euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu Mbay Babacar comme ni nga ko waxee rek ñu am weekend bi Gambie indi leen fa couvrir leen fa gala Fallou Ndiaye bi comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi indi leen nan leen li fa xew lépp te yaakaar naa bëggee ngeen ko la fay di amaat mbégte jàkkaarloog euh, internetu Leewtoo TV jërë ngeen jëf mu ngi noonu leen fàttali ba léegi seen revue de la l'arène ñu ngi ci ànd ak huile Jador ñaa leen durin boobu mooy durin bu mënti durini moo gënti durini consommé local la ci réew mi lañ ko defaree doomu réew mi moo ko fi def nañ ko consommé aca gars yi mu ngi noonu mardi 2 mars 2021 deux Baboy descend Bombardier Balla Gaye 2 détrône Yaxya Diop Yékini jërëjëf Ndeye Mbacke noonu la ko journal bi waxee tey ak ñun ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji ñaari combat yi nga xam ne amateur ba léegi mi ngi des seen bopp fàttewuñu ko mu doxoon ci diggante Baboy ba muy wàccee Bombardier fële ca Thiès kaay wante beneen bi Balla Gaye ba muy nangu couronne bi ci loxo jóob Diop Yékini la woon Assane. dëgg la Mbaye Babacar. les deux plus grands coups de tonnerre dans l'arène noonu la ko suñu làmb waxee maanaam ñaari combat yi nga xam ne ni làmb dootu ko fàtte mu ñëw nag indil ñu ci combat bi nga xam ne ni moo doxoon ci Baboy ak euh, Bombardier loolu mi ngi amoon samedi 16 avril 2016 ci Thiès euh, Baboy dikk nax Bombardier daane ko d'ailleurs combat boobu moo tax président ancien président CNG Aliou Sarr ne dootul def euh, catégorisation ci biir combat bi ndax Baboy dafa euh, tuuti woon trop ci bomba Bombardier malgré ça moom moo ko daane woon. beneen combat bi mi ngi doxoon ci ni ak Balla Gaye loolu mi ngi amoon le dimanche 22 avril 2016 ci stade Demba Diop Balla Gaye da nekk jeune dikk fekk euh, ni nekk 15 ans sans défaite mu daane ko loolu nag mu nekkoon combat boo xam ne nii ñëpp marqué marqué woon ñëpp ki làmb ji ñaari combat yi daal suñu làmb wax ne ñaari com ñaari combat xam ne nii kenn dootu ko fàtte ci làmb ji. kenn dootu ko fàtte Saalum Saalum bébé Saalum bébé Diène ñetti mbër yooyu nga xam ne jaar na ci nga xam ne mooy loxo yoon yoon Mbaye Babacar jërëjëf Ndeye Mbacke noon na ko journal bi waxee tey ñetti mbër yooyu nga xamante ne bii ñoo am lanteeg yoon Assane journal bi ñëw na yaatal ñu ci li nga xamante ne bii mooy seeni jaar-jaar dëgg la mbay Babacar Saloum saalum bébé Saloum bébé Diène ces lutteurs qui ont eu maille à partir avec wala maille avec la justice noonu la ko suñu làmb waxee ñi ñoo ñetti mbër yoo xam ne nii am nan jaar jot nan jaar kaso su ma ko mënee waxee noonu bu dee kàddu gi ñagal su tuuti Saalum Saalum ñu ngi ko arrêté woon avec euh, des histoires de drogue dure noonu la ko suñu làmb waxee loolu mi ngi xew woon le euh, au mois d' waaye après bii tamit arrêté woon nañ ko waaye depuis am na liberté am ngi instant yi ci ay activité keneen ki moom mooy bébé Saalum bébé Saalum moom samedi bi passé lañ ko arrêté moom it affaire faux billet lañ ko arrêté ba instant bi mi ngi ci ak yoon mi ngi am ak euh, mi ngi amlanteeg yoon ay affaire Diène bébé Diène moom euh, affaire arrêté dañ ko arrêté woon affaire drogue non affaire faux euh, moom loolu ak ak vol. moom loolu lañ ko woon ñu ngi ko woon le euh, ay ay ay ngi ni ñu arrêté ko boobu ba léegi mi ngi ci kaso bi ñetti ñi daal ñoo am problème ak justice suñu làmb ñëwaat ak ci ñoom. Mm-hmm. mu ngi noonu yàlla na ci yàlla def ndox bu sedd ku ci nekk delluwaat seen activité Baba Diaw yi daali Adama Sané Sambay Fall ces jeunes promoteurs pour pour. noonu la ñuy dëkkee Guinaa ci promoteurs yi Baba jaw yi daale Adama Sané Sambay Fall de jeunes promoteurs pour bouleverser la hiérarchie. jërëjëf Ndeye Mbacke suñu lamb ñëw na ci ñeenti promoteurs yi nga xamante ne bii ay jeunes promoteurs la noonu nga ko waxee noonu la baaba jaw la yi daali Adama Sané ak Sambay Fall ñii nee nañ dañoo ñëw ngir def fi la nga xamante ne bii seen mag ñi fi nekkoon jotuñu ko fee def. dëgg la Mbaye Babacar Baba Diaw yi daali Adama Sané Sambay Fall euh, suñu làmb nee na ñii ñooy jeunes yu promoteurs yi nga xam ne nii dinañ bouleverser hiérarchie bi maanaam dikk bouleverser ñoom ñoom ñoom euh, ñoom Gaston Mbengue ñoom Aziz Ndiaye wala ñoom Ligue Nicolas noonu la ko suñu làmb waxee nee na Baba Diaw mooy la nouvelle recrue qui impressionne nee na Baba Diaw mi moom mooy impressionné moom ñëwul bu yàgg mais mi ngi impressionné acteuru làmb yi ndax ba premier combat bi mu tëggoon dox ci Jackson ak Pape Ndoye ñëpp gis nañ nu mu également yi daal yi ñi ngi yi daal yi ñi ngi moom mooy la bawol bawol euh, bande ses miskil la bawol bawol bande bande miskil noonu la ko suñu làmb waxee moom nag jot na tëgg caatu Daouda Fall ya contre Yankaaw ak Albarka Kayre contre Gour Kaw Gourdin am na également Sambay Fall Sambay Fall moom mooy euh, un apprentissage dans la dans dans les mbapat nee ne moom li mu jaar ci mbapat yi moom moo tax mu xaw a am expérience ci kii ne moom nag jot na tëgg combat bi di war a ak 2 giga keneen ki ci des moom mooy Adama Sané Adama Sané moom moom nee ne un baptême du feu tant attendu moom nag dëggoon na combat daaw mais jotul woon am ndax mbas mi moom moo tëgg combat bi war a dox ci booy jaxaw ak Tigre Junior. mu nga noonu mu nga noonu Malick Ngingue président ARELS le CNG a démarré ses activités. Mamel Malick Ngingue moom moom moom moom moom moom. Ndeye Mbacke reprendre. ma nga noonu ah Malick président ARELS le CNG a démarré ses activités. moom mi lay jiite ARELS di euh, Malick Gningue ñëw na ci door gi nga xamante ni bi CNG war na koo dooraat làmb ci dëgg la Mbaye Babacar Malick Gningue moom mooy président ARELS ARELS moom mooy association des responsables des écoles de lutte du Sénégal moom nag démb Birasène daf ko dalal ba mu dalalee ba mu génnee wax na ak journal bi nu mu fa wax mooy que ne da ñoom dañu demoon pour euh, am ay information par rapport ak démarrage saison bi ak ni ci ne ne ne CNG bi démarré na ak ay activité waaye ñoom waa AREELS tamit bëgg nañ di tëgg ay combat te bëgg nañ ñu accompagner leen ci loolu bu baax a baax. ba léegi ca gala ba lañ jëm gala a Fass Ndiaga Thioye ce week-end passé Libidor et Johnson survole le tournoi. mi ngi noonu euh, Gambia fa ñu jógee démb. Euh, Fallou Ndiaye moo ñu fa yóbbu woon euh, làmb ju mag nag amoon fa ñaari mbër yi nga xamante ne bii kii moo jël luur bi kii moo jël lese bi ki nga xam ne moom mooy Libidoor moom moo daan Dodo Sané ci luur bi jël raw gàddu gi ki nga xamante ne bii tamit moom mooy Johnson moo daan Lagrose ci li nga xamante ne bii moom mooy poids lese bi. dëgg la Mbaye Babacar gala bi amoon ca Fass Thioye ci weekend bi passé samedi ak dimanche ñu demoon teewal leen fa indil leen fa lépp lu fay information euh, naa suñu lamb la ñëw na fa nee na Libidor ak Johnson ñoom ñoo survolé tournoi bi Libidor moom moo daane du Sané ci final des lourds bi mu ko daanee nag am na 550 du du Sané mi mu daanee am na 300 000 ñi nga xam ne dañ leen éliminé demi finale muy Birame Mbissine ak Mo Gates ku nekk am cinquante mille ci léger yi léger yi moom Johnson moom moo daan Lac Rose ci final bi bi ko daanee pare am na benn somme cent cinquante mille euh, Lac Rose mi ñu daanee final am na soixante quinze mille ñi nga xam ne nii am na nag benn combat bu fa bu fa bu fa marqué nit ñi moom mooy bi doon dox diggante Gandia Fam ak Tranquille ñi ñoo ñoo doon bëree demi finalu léger yi mais ñoom ñaar ñëpp dañ leen disqualifié que dañ doon ci seen combat bi. combat boobu dafa bëri woon coow ba ñoom ñaar ñu mujjee leen disqualifié. exactement Babacar te ma fàttali également que ne tournoi bi 96 93 lutteurs participé nañ ci 58 eh, ñoom ñoo inscrit woon ci léger yi 35 ci lourd yi. mu nekkoon laa ju am solo ja nga xamante ne bii ñafante woon ñëpp seen xol sedd na. dëgg la waaye nag guddi na 6 heures du matin passé de ay 10 minutes yooyu la jeex. 22 heures ba 6 heures de matin ñun ña nga foo woon. moo tax nelaw yu bëri na. moo noonu kontaanee naa ne équipe bi def fa liggéey bu ama ama am solo mu ngi noonu Doudou Diagne Diecko président des amateurs mu ne la huis clos noonu nous agrée pas mais. moom moo jiitee amateurs yi Doudou Diagne Diecko nee na làmb ji ñi ngi ko war a dooraat ci huis clos nee na gënalul amateurs yi mais nag moo fi sës. olof Ndiaye nee na ku ñàkk yaay nàmp ma dëgg la Mbaye Babacar Doudou Diagne Diécko moom mooy président Amalda démb nag dafa seq waxtaan ak journal suñu lamb moom nag lu mu wax nee ne huis clos gënul leen ñoom amateurs yi waaye nag comme que moo fi sës mënuñu ci dara waaye nag nee na ouverture ñoom nag kontaan bu baax a baax a baax ci ouverture saison bi ndaxte le premier mars muy démb la saison bu bi ñu ngi ko doon xaar bu yàgg yàgg yàgg nee na daal kontaan na ci waaye huis bi moom bu mënoon am beneen solution moo leen gënal. mu ngi noonu journal record lañ jëm MMA contre contre euh, contre son prochain adversaire no encore identifié Reug Reug se tue à Dubaï. Reug Reug ma nga fële ca Dubaï di waajal adversaire bi nga xamante ne bii euh, moom la war a jàkkaar lool ci combat bii ñu dëgmal ma nga ca ay wàccaay yu am solo nag Assane. dëgg la may Babacar Reug Reug ginnaaw bi mu daane Sofiane Boukissou ak euh, Pierre Alain mi ngi mi ngi préparé nag troisième sortie ci MMA. troisième sortie boobu nag fi mu koy préparé moom mooy Dubaï mi nga xam ne ni nekk na fa il y a de cela ay des semaines deux wala trois semaines mi nga fa di entraîné journal bi nag nee na euh, journal Record nee na Reug Reug mi ngi foofu sa Dubaï di entraîné bu baax a baax a baax ndax euh, troisième combat bi mi nga xam ne adversaire am bi kenn xamu ko malgré sa Euh, rëg-rëg mi ngi préparé bu baax pour gagner ko. mi ngi préparé mais kenn xamagul kan la war a dajal Assane. loolu moom doy na waar. waaw loolu la nag xam nga waxoon nañ fi benn brésilien la war a dajal muy Bukesa Almeida. mais xam naa entre temps dañ ko changé pour proposer ko beneen adversaire waaye ba léegi daal turu adversaire boobu feeñagul. ak lu ci mën di nekk rek rek rëg moom ma ngay waajal ku ñëw baax na. moom ku ñëw baax na ku ñëw moom euh, objectif am moom mooy mu atteindre sommet au sommet euh, au niveau de ci bi. moom daal mi ngi préparé ku ñu ko jox te xam naa ne du ko bett. ay noonu reprise annoncée de la saison 2020 2021 une année blanche en lutte sans frappe. Euh, journal bi loolu la wax tey nee na euh, saison bi nga xamante ne bii ci la ñu nekk muy saison 2020 ak 2021. li ko ci xeeñ neexu ko neexul amateur yi neexul kenn ku yëngu ci làmb maanaam euh, li nga xam ne moom mooy làmb simple li ñuy dëgmal mi ngi jëm ci saison balance dëgg la Mbaye Babacar saison bi ubbi na depuis démb 1er euh, mars 2021 waaye liy xeeñ waa lutte simple neexul ni nga ko waxee noonu la lutte simple leen di xeeñ neexul puisque huis clos lañ wax ne saison bi noonu lay démarrer te dëgg làmb huis clos ak ak lutte simple moom yaakaar naa àndul looloo tax journal bi ne lutte simple daal seen saison blanche mu ngi leen di xeeñ bu baax a baax a baax. muy la jeexalee ak nga xam ne mooy doomu mbuur géej ba. Bombardier, le B-52, ne peut pas intégrer encore l'UFC Samir Fawaz moom mi nga xamante ne bii xam-xamam dafa màcc ci wàllu sport de combat nee na Bombardier mënagul a dugg ci li nga xamante ne bii moom mooy EFC bi Assane la moo tax mu wax loolu. dëgg la Mbaye Babacar lu tax mu wax loolu mooy moom nee na euh, Samir Fawaz mu ngi xam ne ni benn expert la en sport de combat li wax ma mooy Bombardier mënagul intégrer IFC pourquoi parce que nee na IFC pour nga intégrer ko au moins doo dépasser cent vingt kilos te pour le moment ñëpp xam na ne de Bombardier mi ngi peser ay cent quarante kilos donc war na perte au moins. 20 kilos pour 20 kilos pour mën a intégrer UFC euh, boobu looloo tax daal mu wax ne Bombardier essant bii nii bu mu xalaatagum sax intégré ko wax na également ci combat bi war dox ci Bombardier ak euh, polonais bi di Pudzianowski nee na daal euh, polonais bi am na am na am na am na am na gabari waaye yaakaar na ne Bombardier moo ko gën a puissant te waru ko jaaxal tellement ci ci seen jour combat. mu ngi noonu ah di la bu baax loolu moo nekkoon li gën a fas bay Babacar looy tàggatooyee. jërëjëf ndey Mbacke li may tàggatooyee tey rek xanaa di jaajëfal sama grand sama xarit kooku di Serigne Touba seen jaamu Serigne Bassirou saar jaamu Serigne Touba ñu koy bëggee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak salaam moom mi lee nga xamante ne bii Serigne Bassirou Sarr rek lay noyyee bëgg Serigne Bassirou Sarr wante jeex tàkk ci Serigne Bassirou Sarr kooku mooy entrepreneur bu mag bi nga xam ne mi ngi ñuy topp saa su ci revue de l'arène Serigne Touba Sène yàlla na sa jàmm yàgg. Assane mbay gi Ndeye Mbacke di la remercier di remercier également ñun fekkoon Gambie mooy équipe bu Fallou bi ñoom euh, Mbaye Yékini di leen remercier bu baax a baax bu ñu fa demee ñoom apprécier nañ li Leewtoo TV di def temps yi wax dëgg yàlla apprécier nañ image yi publication lépp ñu leen di remercier ci loolu ci témoignage yi di remercier waa Linguère di leen jox dig daje ba suba incha allah. mu ngi noonu ah, di leen jaajëfalaat bu baax ah suñu internet yi ñuy suivre ci nga xamante ne mooy revue de l'arène chaque matin di béggee sama équipe technique bi Mansour bégg naa la bu baax Ousmane Fall coono bi jàpp na la de un ah, élève yi Yacine nuyu naa la <laughs> Matou Aïda femme yi ñëpp bégg naa leen bu baax ah, ba léegi leen fàttali seen revue bi Ibou Jador moo leen ko doon may di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV. cuum ay waa jile non suñu caméraman bi nag mañ pro benjamin des caméraman oh mañ kawoo na mañ mañ <laughs> non mañee mañ des na tey ci guddi de oh cey moo xool moo maane xool ko moo moom seetaan série rek la fi nekkee te série bi sept heures du matin ba léegi mi ngi koy seetaan te mu jeex sept heures du matin ba léegi bi mu jeex non moo li yi moo moo pàcc la indi Gambie bi laaxi xool leen ko ak si ndaw